kon nag mbokk yi dimanche 19 décembre arène nationale système pay per fukki komba benn tàkku Tapha Tine takk ci rib Boy Niang numéro 2 le capachoni Tidiane Faye le professeur de Lansar ak Alioune Seye Junior ak yeneen juróom-ñetti combat pay per rek ngeen ko mën a seetaan ci 3W point lambdiaspora lu ñu war a remédier ndax olof Ndiaye dafa ne li sa ginnaaw moom la defar li sa kanam ñu jëm ci combat bu mag le 19 décembre diggante Tapha Tine ak Boy Niang gis li ma ci gis daal euh, affiche bu bu neex la. di félicité aussi di di féliciter le promoteur Pape Thialis Faye indi na nag affiche bu neex a neex a neex parce que ñaari mbër yi mu indi maanaam seen style dafa xaw a différent te saa yoo indee ñaari si ñoo xam ne seen style dafa différent rek làmb ji dafay neex waaw d'autant plus que nag ñoom ñaar ñëpp. préparé nañ ko gis nañ leen seen façon d'entraînement gis nañ leen seen façon de faire gis nañ leen seen mantal bi ñu yor ku ci nekk bëggul perte combat bi kon ñu ngi dem ci combat boo xam ne dix-neuf combat bu neex combat boo xam ne daal ku yéex doo am place ku yéex aussi doo gis làmb parce que <laughs> làmb ju garaaw la làmb ju neex la. gis nga mooy Tapha Tine démb woote Iba Mar bawol bawol yëpp ñëw wuy si ko mbooloo boobu nga topp ba nga gisee état de forme ban impression la la jox. non impression man xam naa ne. en tant que un ancien bëgg na komba bi tafaatin bëgg na combat bi te ay mbokkam gëm nañ ne bëgg na combat parce que lu mu liggéey la nit ñi kenn mënatul ndax kenn tey jii am na nu mu doon taxee wala nu mu doon defee dañ euh, ay mbokkam dañ koy dañ koy wax naka su noonu mais ñoom xam nañ ne seen mbër il est prêt le jour J pour jëflanteeg euh, Boy Niang physiquement mentalement moralement Tapha Tine il est bien man loolu laa gis ci moom ci état de forme ci esprit ak ci mental. ñu gis bawal écurie bawal yi mbëru bawal bawal yëpp man koo nekk ci ginnaaw kenn mooy Tapha ba tax mu may ko doole ju bëree bëri est-ce que loolu du nekk pression ci ñoom wala courage la ko yokk non courage la koy yokk rek parce que tey booy xool moom xale yëpp a nekk ci ginnaawam et nag muy représenté benn benn benn benn xeet goo xam ne dañoo bëgg làmb muy sunu mbokk bawal bawal yi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax dañu bëgg làmb ñoom dañ koy dund que muy fii Dakar muy si région yi foo dem bawal bawal yi dañu bëgg làmb tey ñu dem ba xam ne kii tey mooy seen yaakaar ñu naan ko la géant di Bawol gis na tey jii moo war a ne ci kanam xale yëpp nekk ci ginnaawam te ñoom seen biir du ñu bëre mais moo tax ñu def yenn bloc. loolu nag da koy yokk joma ah. xam naa ne yokk na ko jom yokk na ko aussi doole yokk na ko jom yokk na ko doole yopp na ko yokk na ko moral ku si nekk ku mun munti doon rek booy jëm ba si mel noonu gestu gis sa mbokk mooy li séeréer yi wax xam nga am na nu ko séeréer di làkkee na pogum nga dem ci pël yi ñu naan la ne da ko bandum donc ay mbokkam ñoo ne ci ginnaawam looloo ko may doole tey ba mu am confiance ba pare nag liggéey normalement nag parce que nag ay sa ay mbokk ne sa ginnaaw te liggéeyoo bu bés baa doo def dara mais il a bien travaillé li ma gis. ñëw ci kanam mooy Boy Niang mu doon tukki. ñu jàppaat làmb mu tukkiwaat état de am loo ci gis. waaw li ma ci gis rek mooy mooy moom it bëgg na combat parce que bu ñu jàppee euh, mu am gàllankoor làmb ji mu jëlaat aussi nga jëlaat ay moyens delluwaat loolu dafay wane ne yow it bés bi am na lum la jaral. booy ñaa bés ko am lu mu ko jaral parce que aussi dafa bokk ci làmb te dafa am ay combat yoo xam dafa nekk ci kanamam te bi obstacle la pour moom te il faut mu jéggi combat bi il a compris loola li koy xaar moom it xam na ko moo tax xam nga bàyyiwul xam nga benn moyen pour le jour si mu ñëw pare physiquement mentalement te gis na parce que aussi gis naa ko boo ko gisee keroog stade Iba Mar seen premier jàkkool bi bi amee problème tu vois un Boy Niang déterminé un Boy ñeme ko ñeme ko lool waaw wan ko ne sax yow maa la gën loolu la ko woon maa la gën a pare peut-être maa la gën a doon xale lay am ci làmb ji maa koy def booy ñaa lool boo xoolee loolu la indi aussi xale la ba pare mën na bëre te tacticien la ci combat c'est un bon tacticien booy ñaa ba pare mën nga doon tacticien bañ a fonk bës mais daal gis naa ne bés bii moom it xale bi fonk na ko lool lool lool lool te te it gëm na ne mën na daan tafaatin ñooñu moom tamit mu am combat ak Tapha Tine ñu ne booy ñaaree day xar na géant bi mu dugg mu jël tegaat ci Balla Gaye numéro 2 loolu euh, loolu forum lay nekk wala faiblesse am lay nekk. waaw xam nga des fois mbër mu si nekk rek da ngay ñaan yàlla am 4 ba 3 combats ci saison bi parce que man ñoom ñëpp dama leen di féliciter parce que seen liggéey la seen gagne-pain la ci lañ war a defaree seen àdduna ëllëg. te ñëpp xam nañ ne benn combat par saison kooku mbër bu koy bëre euh, amoo chance su réaliser li nga bëgg a réaliser kon c'est la kon tey boo amee chance jël trois avance da ngay day mel ni rek un entrepreneur bu gagné ay marché am fii bii bii Dakar bii Thiès bii Diourbel noonu la noonu kese la demee. waaw ay ay entrepreneur la ñu gagné nañ ay combat di leen féliciter je sais que ne en amee conscience ku ci jël trois am combat dalay permettre sax nga nga waat gën a liggéey xam ne li ci kanam doo chemin dina la laisser deux combats affaire yooyu moo tax euh, man pour man daal chance la pour ñoom. kii Aziz nekk ki nga xamante ne nii moom mooy encadré Balla Gaye numéro 2 ne booy Niang su lancee ci diggante ne ma Tapha Tine du bëreeg Balla Gaye loolu du nekk pression ci nga xam ne mooy Tapha Tine Boy Niang wala ci ñoom ñaar a nekk ci pression parce que lamb moom xam naa ne Aziz moom bon. xam nga moom Aziz Aly yenn saa xam naa yaram bi day tàng rek man je le connais bien maa ngi koy nuyu au passage yaram bi tàng rek waaye bu fekkee ne contrat bu ñu parafé la bu ñu signé ba pare la que mu gañu ou pas da koy bëre. parce que lépp léegi xam nga ku si nekk léegi mbër yi yeewu nañu ci côté boobu ku si nekk am nga ay avocat donc euh, lépp loo fiy signé rek sa avocat yi day toog ngeen liir ko clause yi ba ba juboo nga daal di signé mais je pense que ne que victoire ou défaite Boy Niang va va rencontrer Balla Gaye 2 muy bëri fi nga xam ne mooy diwaanam biir koñam ki nga xam ne mu waa Bawol ñooy koy fekk si lan ngay wax jeune Pikine waa li may wax jeune Pikine rek actuellement képp ku dëgg Pikine di bëri rek yow maanaam ay da nga war a recevoir ay gan te gan danga koy teral ñu xam ne ñun stade bi suñu stade la pendant près de cinquante ans depuis ñoom Fodé Doussouba ñoom Abdourahmane Ndiaye Falang masuñu am stade donc te bi ñu amee stade ñoom ñu am chance mu nekk foofu Pikine dañ ko war a sauvegarder mooy li ma wax tout à rek Euh, foofu stade bi nekk foofu palaasam la parce que tey jii dafa am jikko yoo xam ne tey buñ délégé woon arène bi yóbbu ko palais de la république te jikko yi changé wul ce sera la même chose ils vont faire la même chose donc nañ xam ne lii sport la dafay jeex daanaka gañe ñoo yem ci sport mais ñëw fees stade bi aussi te man bon gisaguma gisaguma gisaguma non si je me trompe pas peut-être euh, waaw gisaguma dool ñoo xam ne ku mel ni moom gisaguma moom mu de parce que bëri na ak Lac de Guiers 2 mais gisuma fa loolu foofu waa Pikine dañoo ñëw wane civilisé ba booy Niang bëre ba lay am am fa mais sànniwuñu xeer tojuñu ay lam defuñu dara kon maa ngi leen di ñaan loolu ñu defoon ba nit ñi naw leen maa ngi leen di ñaan pour ñu def loolu moo tax gis nga àdduna lépp looy def rek defal lu baax booy wane wane lu baax gis nga ñi njëkk a ñi njëkk a def euh, acte yu ñaaw yi tooñ nañ tooñ nañu Sénégal malgré ils ont revenu pour réparer mais ñoom ñoo euh, ñoom ñoo indi loolu parce que ñoo ko def moo tax booy def ci ngay def lu baax mais Pikine ba fa njëkkee am grand combat muy muy Boy Niang ak Lac de Guiers 2 pas de problème bëri nañ ko ci jàmm mu a ci jàmm donc je pense que ne cette public là bu ñëwaatee le 19 ils vont faire la même chose Ama Baldé aussi ak kii ñu waree ñëwee foofu ils vont faire la même chose parce que lépp ndam li du génn Sénégal ay doomu réew mi lañ. fu mu ne nii nag ci képpandaar émission bi lañ nekk lan ngay wax promoteur bi mu jël ci ay motivation wala lan lay war a waajal ci jour combat boobu. motivation bi njëkk rek mooy que mu sécurité bi gën a day ñu gën a renforcer sécurité bi et puis tirer ay leçons ci journée bi passé parce que journée bi passé bëri na fi ay bëri na ay ay détails yu bëri yu yàq làmb ji donc muy muy le CNG xam naa nañ ci jël ay matuwaay le promoteur Pape Thialis na si jël ay matuwaay boo ko defee amateurs yi am fitu ñëw si jàmm làmb ji yeex ñu daal di ñibbi si jàmm mais je pense que nee naa combat Siteu Papa Sow que muy le monde de la lutte que ce soit amateur supporter CNG mbër yi accompagnateur yi dañ ci tir ay la. rebo am nañu reporter yi fa toog ba une heure du matin moom père ñëwee ñoo ñibbi ndax insécurité bi am ci dëkk bi. waaw xam nga loolu mooy li ma la wax rek tout à l'heure euh, afa am ay images yoo xam ne dafa ñaaw te tey Sénégal dafa bokk ci dëkk yoo xam ne boo nee Sénégal démb am na am na benn représentative si àdduna turu turu Sénégal dafa dem. moo tax yenn image yu ñaaw yi xale yi war nañ koy moytu parce que tey boo demee ba làmb demee noonu dootoo sa war a dem làmb man pour diir vrai man làmb léegi xanaa écurie fii di bëri su écurie sama écurie ñu bëri man dinaa dem seetaani mais bu amul bu xale yi buñ bërul du ma dem parce que li ngay li may bañ rek mooy loolu xam nga après làmb nga gis ay actes yoo xam ne man bëgguma gis lu ñaaw donc xale yi ñu ngi leen ñaan nañuy ànd ak dal lii ñuy def nañ ko bàyyi alal da koy liggéey mu lew la mais ba foogoo ne tey moo xëccee sa greffage bi mun naa ci am cent mille boo ko lekkee yaa ngi lekk safara sa biir boo léegee da ngay dee te da koy layoo di jël ay fekk mag mu toog di jaay ay ay ay di dundal njabootam teg palaatam ngeen romb ko këpp palaat bi yóbbu ko dem mu jooy dem yen ñi def loolu ngeen foog ne di ngeen am jàmm lu bëri ngi leen di dal nañu moytu yooyu loolu kese la du leneen ay dañ ko liggéeyak nangam sàngam ak am na benn dara parce que yàlla bëggul kuy tooñ yàlla bëggul kuy tooñ te xale si léegi dama gis ñu ba dañuy tooñ nañ bàyyi loolu baaxul làmb ñu tax yow mais daal public bi rax làmb a ah ba te maanaam dafa yàggul quoi ay Modou Lo Balla Gaye waxuma sax ñun ñun moom suñu ñun ay noble lañu woon ay jamono ñun ay noble lañu doon amuñu woon ñuy xeex ak xuloo ak reyante da ngay bëree maanaam buñ la daanee sax yow ñu jaan sax yaay jënd ay boissons sax euh, kii xala wala ñee jënd ngeen si biir stade bi yooyu da daan am Ah, mais léegi xoolal ñu jël ay beneen public ñëw te public boobu moo topp moo ne ci nawetaan yi nag moo nekk ci football nawetaan yi moo ne ci làmb ji ñay dem. Hmm. non non saa li public bi may wax nii dafa di public boo xam ne maanaam dañ ñoo dugg maanaam ay ñaaw ñaawteef moo leen tax a jóg teef mais dem sport lu si wuti di agressé ay nit. lu ci uti di di di jël ay scooters yu jàmb lu ci gis di tëj ay oto di dugal seen loxo di jël effet kooku kooku kooku ñooñu ay làmb làmb yóbbuwul leen dafa am leneen lu leen yóbbu ñooy ànd ak public ñooy ànd ak nag fan si club wala supporters yi di def loolu. donc ñooñu dañ leen war a di identifier mu jaral écurie yi ku ciy bëreeti say waa koñ xamante nañu ñoo xam ne boo ko yuseen ngeen leen identifier bu jaaree ngeen leen jàpp sax di leen jox euh, yoon nga def ko mais franchement daal ay actes yi rafet na li may tàggatoo rek vraiment di souhaiter le promoteur a plus les sponsors donc ngay euh, ngay débrouiller te c'est dur ah il faut le il aussi donc li may tàggatoo daal di leen ñaanal xam nga vraiment si ñu jàppale leen muy état bi di jàppale promoteurs yi fexe sponsors yi ñëwaat làmb ji dellu fa mu nekkoon démb te loolu pour mu am il faut que yaru am il faut teggin am di wax ne daal macha allah ñu ngi koy waajal te mun na am sax bés ba man mi sax mun naa def surprise làmb ji. parce que am na lu man sax am na lu may waajal xëy na nag bëgguma ko wax mais am na lu may waajal suba saa pour soutenir mon frère euh, Pape Thialis Faye incha allahu rabi. muy noonu suñu papa dañ koy jaajëfeel bu baax a baax mbokk yi noonu la ñuy def événement bu mag Tapha Tine Boy Niang ñu lañ koy toppal nii képp ku nekk ci laamu xam laam lañ la woo waxtaan ak yow Oumulaay Mansour def direction ba fan direction direction direction ajata ko mbokk yi dimanche 19 décembre arène nationale gala de lutte bu mag ñu ànd ci ak Leewtoo production benn takkusaan